HLM lu ñu mës a def ci logement sociaux weesuwul 17000 jàpp 18000. xam nga yow. Eh, non non waaye da nga wax ma dëgg la mais li mooy lan. non non moom li muy bee rek moo baaxul. non il faut respecter les gens dafa ñëw toog ne affaire lay représenté. déglu. c'est pas normal da ngay diriger plateau. waaw da ngay déglu. c'est pas normal. da ngay déglu dama naan déglu dal dalal damay dal que ti ma énerve waaw dalal parce que di diriger plateau dalal ñu taxaw toog amoo looy wax lu dul naan affaire laa fi la loolu la tijjee waaw may ko tuuti affaire lay mais may ko tuuti mu ñëw donc faux débat bi yow la waaw yaa fi indi faux débat waaw léegi doo may ma yeggalee bu ñu jaxaseeg sénégalais man yow <laughs> munoo taayi nopp yaatal bopp ba sama APR bi nga génne ma ci. waaw man du ma ragal. waaw d'accord man du ma ragal tudd ma ruux. waaw waaw baax na. je suis APR jusqu'à la mort. waaw mais kooku yow la concerné Macky bëgg man sama xol bi. waaw kooku yow ñun loolu yàlla ko dogal. gisuma Macky Sall dégguma Macky Sall dërëmi Macky Sall jógewul ci moom ñëw ci man waaye dama koo bëgg te yàlla tax ndax boromu jom la te mi ngi liggéey loolu nag bokkut ak dara waxtaan xam nga kii kan laa koy xoolee loolu bokkut ak dara waxtaan laaj ma la laa koy bu bu waaw ok merci ah, jërëjëf affaire gi mu doon. waaw waaw ok man maa yow ñun deux léegi am nañu birima. waaw ok jërëjëf jërëjëf birima. waaw merci jërëjëf yow luñ la wax rek baal baal lañ la ko. waaw ok waxama Ndiaye dañuy waxtaan. Mhm. wax naa fi démb ne. bi ma gisee ñu yenn réew mi population bi lu nu attanul. dëgg la damaa taxaw bañ. Mhm. ba pare na nañ ci wax yàlla yàlla dëgg rek la bëgg. waaw ba pare na nañ ci wax. logements sociaux. Mhm. yi nga xam ne tey état da koy defar ba mu baax. di ko jébbal askanam. ci di leen ko defal nu mu taw féexee ba ñu man caa jot bi Sénégal des Sénégal ak tey laa la wax depuis 1960 suñu am suñu indépendance ba léegi mus ñu cee weesu 17 jàpp 18000 yoo xam ne tey moom la ñu tabax ci ay kër mu nekk ay logements sociaux bi président Macky Sall ñëwee ci juróomi at yi ñu jëm diggante 2019 bi mu jëlee réew mi ak 2024 taxaw na pour def ci téeméer mooy 100000 logements sociaux. mooy yéene 100000 yooyu nag président dafa ne dañ koy tas ci 14 régions yi nekk Sénégal. Mhm. région bu ne Sénégal bu ne ak ay logement am logement yi xam nga pour lan la Moustapha mhm. président joxe na ndigal ne képp ku autorité bu laal ci kër yi képp kuy député bul laal ci kër yi képp kuy ministre bul laal ci kër yi képp kuy DG bokk ci ñoñam bul laal ci kër yi ñu ne ko kër yi président ñan ñoo ko moom mu ne kalaasuk Omaro gi nga xam ne ñi ngi daan seen doole doon yi seen pili animateur ak i euh, ouvrier ki nangam ki nangam ak nangam nga xam ne seen salaire weesuwul quatre cent mille ñooña ñoo moom logement sociaux yi mooy ñi nga xam ne tey yàlla dogal na ñi ngi liggéey waaye seen salaire weesuwul quatre cent mille ñooñu la ñuy tabaxal cent mille logements sociaux yi nga xam ne président Macky Sall fas yéene na ko def ci juróomi at yi léegi cent cent mille cent mille logements yooyu xam nga luy pay kër goo jël tey bu fekkee ndakaaru nga nekk tey ñu def logement yi Bambilor wala ñu def ko Lac Rose wala ñu def ko Tivaouane Peulh nga dem yow Moustapha Touré am ca tey kër gi nga dëkk sa appartement bi nga dëkk ci Ouest Foire ma la fay fekk Moustapha yaa ngi fay cent cinquante mille weer wu dee mhm. tey boo demee ci logement yooyu nga xam ne président moo koy joxe doo weesu soixante cinq mille francs par mois mhm. soixante cinq francs yooyu xam nga lan la mhm. du lay fay weer wu dee de luy jëndee sa kër la ñu jaay la ko ci dix ans ci fukki at yaa ngi fay kër woo xam ne weer wu dee doo si weesu soixante quinze mille wala soixante dix waa loolu Papa Ndiaye mhm. bu ñu nee baaxul wala ñu ne du jàmm wala ñu ne du tawféex wala ñu ne du ndimbal est-ce que ay nit la ñu ñun mhm. est-ce que ànd na nag suñu xel ak suñu sago dañu waxante dëgg ku ne fi sa doole tollu ngay teralee ku ne it fa nga fekk ci sa réew fa nga leen di dimbalee président li mu fekkee ak fa mu toll ak fa mu mane mooy cent mille logements sociaux fexe ku ci ne ci ñi néew aw salaire nga xam ne seen salaire weesuwul quatre cent mille ñu jébbal leen kër ya ñuy fay soixante cinq mille par mois fay ko ci dix ans ou quinze ans ba kër ñu moomal seen bopp loolu jàppale la ab jàppale la mais loolu nag buñ ci plateau bi bëgg koo xeeb bëgg ko néewal doole bëgg ko ñàkkal fayda du ma ko nangu mhm. dañu waxante dëgg jëf ju baax la mhm. jëf ju rafet la nañ ko nangu te saluer ko loolu li Amaro nii amul mhm. barke Serigne Bamba Mbacke bu amul yàlla nañ ma la tàgg si. waay wa taala yow bu fekkee bokku ci projet président yi. falaam 2024 yàlla nañ ma la tàgg suba. falaam Omar sànq da nga wax lu am solo. falaam waaw waaw dañuy waxtaan. mais léegi li mu wax ni damaa mu leeral ma ko falaam. déggoo li ma naa la quatorze régions yi nekk Sénégal fii may wax <laughs> dama ko maîtriser léegi man li ma bëgg participer ci Serigne région bu nekk Sénégal jël nga ci gaa yaa ngi travaux yi ña ngay tabax te 2024 balaa ñu faa yegg ku ne nga sa caabi léegi nag Umaro foofu nga nekk li may xam naa ko fi ñuy doon am na loolu loolu non yow bu ligganti nag am naa ci aw ma ci réew mi la ñuy waxal réew mi la ñor ah, nañu wax ci li ñor réew mi waaw nañu wax ci li ñor réew mi loolu moom waaw loolu moom c'est normal ah, parce que président moom bu ñu ko nommé dafa ñëw pour liggéeyal réew mi mm-hmm. te kenn mënu wax ni tamit ni président nekku fi pour jàppale néew di doole yi pour ñu am ay dëkku dëkkuwaay mm-hmm. loolu nit munu ko xalaat di ko wax. Mhm. xëy na dafa fekk kay li ñu soxla ci ay dëkkuwaay est-ce que tolloon naa ak li ñu président di defal. ba xam doy na wala doyul. ba xam doy na wala doyul. Mhm. ñun ci loolu lañ nekk mais xam nañ ni muy Ablaye Wade muy Senghor muy Abdou juuf bépp kilifa bu fi musa falu yaa ngi bàyyi xel ñi ñàkk wala ñuy liggéey te amuñu possibilité am fuñ dëkk moo tax ay HLM baatu HLM am fii. Mhm. am nga yàgg ngeen di dégg HLM ci Sénégal. Mhm. loolu ay président ñoo ko doon def. dëgg la yéen kili waaw ay sika ba xeet mhm. yooyu noonu. xëy na tamit président Macky Sall mi ngi ciy def. loolu kenn sañul taxaw ci réew mi ni munul nekk. Mhm. loolu mën naa nekk te am na pouvoir def ko. dëgg la mi ngi ci. mais réew mi nag ñu soxla loolu moo ëpp li ñu defar. dëgg la ñun kay li ñuy ñaan mooy ñu jéem a encouragé waat président jéem a ñaan réew mi tamit. ginnaaw tabax yi ñuy tabax pour nit ñi di fa dëkk ñu koy sàmm. ñaareel bi ci mooy ñi nga xam ne am nañu espace yu yaatu yoo xam ne xëy na peut-être légalagul ñu jéem ko organiser ba mu légal ndax askan bi mën fee dëkk. ñu jàppale tamit ñi nga xam dëkk nañu dëkkuwaay boo xam ne fi ñu dëkkee wóoragul wala baaxagul ñu bañ a teel xëy rek daaneel seen dëkkuwaay mais ñu teg leen ci yoon jàppale leen. parce que li am solo. Mm. mooy doome aadama yi ñu nekk ci jàmm. ñu nekk ci sécurité. Hmm. ñu nekk ci xel mu dal. Hmm. loolu nag liggéeyu état la mais liggéeyu citoyen citoyen bi hmm. tamit war na am fu baax. muy jënd mu jënd ci lu leer. dëgg la état tamit war na fekk koo xam ne amul moyen mu jàppale ko pour mu mun a am fu mu dëkk. loolu laa ci doon kii nii. c'est important li mu wax li mu wax. dama ci d'accord mooy li président wax sànq démb bi ñu toogee fii te seetaanaguma lii. Ah. li président wax loolu laa doon xaar ci moom tey. dëgg wax na ko démb. waaye am na dafa wax lu am solo. nguur mënul lépp déedéet. mënul nekk waaye dafa tudd ku ñu wax Ablaye Dia nga wax am na. Mhm. waaw ma gis tamit euh, Touba ca kanam. Mhm. gis suñu yaay Marème fay Sall yor fondation. Mhm. gis Abdou Aziz Ndiaye. bu Touba wootee mu def ci alalam. bu Tiwaawoon wootee mu def ci alalam. dëgg la mooy ay bon bonne volonté fi. yoo xamante ne ñoom it ñu ngi participer ci dëkk bi. ci defal néew di doole yi. loolu lañuy xaar ci ñi suñu borom may yenn doole yi. mooy du nguur rek moo mën lépp. Mm-hmm. loolu c'est à saluer waaye ki nga wax Ablaye Dia li mu def def na lu rëy def na lu rafet léegi nag keneen ku nekk ci dëkk bi mm-hmm. te mel ni moom mm-hmm. na def lii ndax dafa am loo xamante ni loolu la ñuy xaar ci ñoom ndax suñu borom moo def li ko neex may Omaro li na gàññ jox Papa Ndiaye tuuti may musa Moustapha leneen yàlla moo defee noonu kon donc bu la yàlla joxee doole ji nga la ñëpp doonu jaay doole da ci def ndimbal xool ni kat dëgg la yow yow yaay yaay bàyyi tout de tous les nations. ñëpp sa doom lañu. ku jooy da ngaa war a dem xool. Mm-hmm. la muy jooy lan la. Mm-hmm. ndax sunu borom moo la ko jox yaa ñaan. Mm-hmm. bu ku laal këram da ngaa war a taxaw yow lan la sa kër. ñu ne la lii la. nga ne leen régler leen problème ba pare wut ñu ko topp suivre ko. dëgg la dafa da nga wax lu am solo. Eh. mooy euh, nguur day wax dara ba pare. ne leen ko ñu ne ko c'est bon dinañ ko gérer. après loolu ñu toogaat ay at at. sis ba léegi. problème yi ñëwaat. Mm. mais ñàkk ñàkk ko am ku ko suivre la suivre topp il faut ñu suivre ko topp ko dossier doo ko joxee rek mm-hmm. jubluwaat ci beneen mm-hmm. danga koy topp ba bañ ne fin mm-hmm. bañ ne fin nga doog jëlaat beneen dossier parce que Omar néew di doole yi sonn nañ ba pare ñun est-ce que Sénégal dépassé wuñ ay waxu suuf vraiment dépassé dañ ko war a teg ay sart yu leer yoo xamante ni euh, am ni waxi suuf ñun ñoo ko war a dépassé mais heure buñ ci xëyee ñu ngi ciy dégg lu metti dëgg la ku la jege ku jege Omaro ku ma jege ku jege kii ay nit yoo xamante ne ay moodu moodu wax nga leen démb ay néew di doole yu ne fi ay ambulant bëgg seen yaay am benn pukkus bu ñuy fanaan mais président lii mu def lañu xaat moom na jógaat làbbali yëngal ñu xool ñan la ak ñu indi problème bi ak jafe-jafe yi ak ñi defoon seen alal ciment moom li ñu wax benn yoon lay tooy ciment moom buñ boo xësee ba tabax ñu daaneel loolu moom yàqu na ciment benn yoon lay tooy nit ki nag mënul wuti di chaque jour nga koy yàqal dëgg yaay Marième Faye Sall ñu ngi koy woo mi ngi def lu rafet di def lu baax ci dëkk bi na gën a def mhm. sunu papa le président son excellence xam nga yow da nga ko bëgg waaye man gëmee ma ko mhm. ndax xam naa ni ku bëgg jàmm la dëgg la jàmm moom buñ ko amee dinañ gën avancé ci mhm. waa APR ta ñàkk ci <laughs> waa APR dafa waa léegi ma <laughs> am di mu ñëw ma wax am di waaw Omaro nee na nee na nee na nee na nee na kër yi tabax nañ ko ay logement la mais di nga logement yooyu ah. baadoole yi duñ ci am

ñaata gendarme yi retraité ñoo fi nekk di loué ba léegi. Mhm. Tafa. na ñaata professeur ñoo fi nekk di loué ba léegi. bare pour ñoom la. waa defal ndànk rek ah ñaata ñaata comédien ñoo fi nekkoon di liggéey ba ba léegi retraité ba léegi di loué. Mhm. man eh, moom logement yi donc rek defal rek. Mhm. xam nga loolu la xam nga loolu pour ñoom la logement yooyu mais logement yooyu dafa ànd appoor apport. lan mooy bi. mooy da ngay def pré banque. da ngay ne boo amul bu ñu la nee logement bi dañu la koy joxe dix da ngay indi cinq millions wala quatre millions. non non non non defal ndànk waay yow la nga wax amul non defal ndànk am na dama ne defal na soixante mille yi muy wax dem ne ngeen xool soixante mille dina leen man ci télévision laay xool xam ma yeggali même yeggali yow kii est-ce que way na defal ndànk yooyu lañ Papa Ndiaye Papa Ndiaye jëlee sa soixante mille la ngay ak sa carte d'identité taxaw ne tabax kër laa bëgg may ma tuuti may ma tuuti ci télévision laa toog di wax. man ni ci télévision laa toog di wax. àddina moo may seetaan. te it e, fii ma toog tey dama liggéey ba toog fii waaye liggéey bi jàmbaar amul ku nu dimbalee am. bis bu set ma toog ci télé bi na ba max ki ci kanamay daanu. waaye ki ci ginnaaw koy def. sénégalais yi ñoo ma sotle man. ñoo ma bëgg dugal ma ci seen biir xol. ñoo ma jàppale ñoo ma dooleel. ba ma mën am tey bii cër ma am tey fii ci 2STV. macha allah kon dara ci àddina du ma jaral. ma toog 2STV àdduna dama seetaan may sacrifier sénégalais yi li may wax daf maa leer ni midi. dama ne logement sociaux yi président di joxe. lu ma gëstu ba xam ko téye ko ni ma téye sama loxo ndeyjoor wii. laay wax ci télé bi. waaw logement sociaux yi toll na ci 1000 logements. yoo xam ne dañ 100000. Euh, 100000 logements yoo xam ne dañ koy tas ci 14 région yi nekk Sénégal. ngir nga am ci kër yi xam nga lan la ñaari condition yii la. benn bi mooy tey ni ngay joxe caution pour dëkk ci kër appartement booy loué. te moomoo ko boo fa defoon 15 ans bu ñu la bëggee génnee da ngay xëy génn. noonu ngay joxee caution ci logement yi ñu lay jox. Mhm. defoo benn prêt bancaire tegoo daray million. Mhm. bu ñu la joxe deux chambres solo boo xam ne waroon nga koo loué deux cent mille war nga joxe caution wala quatre cent mille na nga ca mbedd ba. Mhm. boo waroon joxe quatre cent mille. fii deux cent mille ngay joxe. waaw caution yi amul deux benn weer ngay joxe. caution ngay ah. joxe non déglu ma rek lu ma xam laay wax. caution ngay joxe benn weer deux cent mille ñu jox la kër gi ci xam nga yaa ngi liggéey te weer wu dee yaa ngi am salaire woo xam ne weesuwul quatre cent mille te man nga weer wu dee nga jël ci sab salaire soixante quinze mille fay kër gi est-ce que dégg nga ma ñu rikk ci caabi jox la nga dëkk yaak sa njaboot deux cent mille caution dëkk sanc kër gu pare ndox ak courant karo peinture lépp nga fa nga meublé dëkk yaak sa njaboot mm. weer wu dee nga rekk ci soixante quinze mille fay 75 millions ngay fay da nga koy fayee fayuñu kuy fay location. Mhm. mais en réalité fayuñu kuy fay kër gum jënd la. waaw parce que lu muy gën di yàgg ngay gën di sore waaw bu yeggee nag ci fukki at yi la may ba fukki at ak juróom yi fay ko. ñu rikkati nag caabi yaa kii di jébbal la na nag tey kër gi doon na sëb kër lii laa wax te damaa bëgg mu leer ndax bu kenn yóbbu samay wax di ma jaxase ak réew mi ma ne lii laa wax apport li ah, wax nii waaw kañ li information la joxe mm. waaye yéen tey lu xew moom waaw information la joxe waa jox ñu xam nga lu tax xam nga lu tax apport duñ la tabaxal kër yaa xam parce que du tax ma ne ko euh, néewul doole duñ ci am maan xam nga amul quatre cent mille par mhm. bu mu génnee waa mais dafa ndànk lan lay dégg non dafa ndànk dafa ndànk Amdi Amdi Moussa Fall Moussa Fall il faut ngeen eh, ñu tamit parce que yéen loolu taxawal eh, yéen suñuy naaw ñu bokk yéen plateau bi eh, dafa toog jàngalekat bi waaw jàngalekat bi ah, ah, ak seret ak dawalkat seret bi mhm. ak ak kii lu actionnaire bi. waaw fonctionnaire bi. waaw ñoo yem légalité. ci ci réew mi. Mm-hmm. est-ce que comprendre lañ ay sénégalais lañ. Mm-hmm. ñoo yem pied légalité. am di toogal Macky Sall buy dimbali nit ñi na dimbali na dimbali ñoo na na ñamale foofu ñoom ñëpp. est-ce la kër doo ko fi jël te joxe wa apport. Mm-hmm. apport doo ko joxe da nga koy joxe apport gay joxe mais li ngay logement fii nii Kolkata ñëpp am kër. mais pour loolu la. kan nga gisul mu def ko léegi dafa naan yow limal ma kenn rek limal ma kenn rek koo xamante ni noonu la dafa am kër dama ne Moussa Ba Papa Ndiaye dañuy waxante dëgg waaye eh, eh, bi bi <laughs> am di nañ ubbi ligne bi dalal daay ubbi leen ligne nga jël xaw ma da nga am sa ay nit si ligne bi xaw ma nit de daay ubbi leen ligne nga jël ñaar baat ubbi leen ligne bi nañ eh, dama ne dañuy waxtaan te li may wax rek ci sama njëlbeenu kàddu waxtaan la tudd mm. xuloowunu xeexunu émission bi jeexee ñoo na ñibbi bu ñu fi wane lu amul wala ñu wane fi lu nekkul. mais raag dina am de. waaw jàmm rek waaw mais lépp nañ ko def ci diplomatie. yoon waaw nañ ko def ci jàmm tàmbale ku jàmm jeexee ci jàmm. amiin day am sax. dañuy waxtaan da bañ a fàtte dama ne dama ne bi may door suma kàddu laa ne kër yi ngir néew di doole yi la. Hmm. néew di doole yi mooy lan ñi nga xam ne weer wu dee ñu fayeeku rek lañu am ngir dund. denc nu dara ca banque ba. kër social du ay millions du ay milliards bañ nañ ko ba dañ ne logement sociaux. Hmm. mooy dëkkuwaayu tawféex ngir jàppale askan wi da nga dégg bu baax. waaw ñi nga xam ne seen salaire dooree na cent mille. jëm cent vingt cinq mille cent cinquante mille cent soixante quinze mille deux cent mille ba quatre cent mille. ñooñu la ñu jagleel kër ya. Mm-hmm. ñoo ko moom. waaw léegi nag. bi président teg projet bi dafa ne. Mm-hmm. bu ministre laal. bu ci député laal bu ci DG laal parce que ñoom am nañu salaire wu weesu moo tax président tere ko. Mhm. léegi ñi nga xam ne nag amaguñu salaire woo xam ne moo xam salaire wi dooree na ci 65000 70000 80000 100 150 250 300 ba 400000 mais ñooñu ay néew doole lañu. waaw parce que dëgg yàlla parce que dëgg yàlla ñooñu. Mhm. seen salaire bu ñu ko tegee ci yoon pour ñu dajale lu ñu tabaxee kër. kër. Mhm. boole ci di fay waaw boole ci di fay lu waaw très bien kañ nga koy dajal très mais président na la ñëwal nga jël loolu mm-hmm. nga dëkk ci deux cent mille caution weer bu dee soixante cinq mille ba soixante dix mille ba soixante quinze mille mais wax dëgg yàlla bu ñu na amul mais ñi ngi ñi li nga wax ni social mënu ko romb waaw mais lu am la programme président président Macky Sall programme am mm-hmm. par la force jaadu na léegi ñu amul salaire nag yoon la ñu amul salaire waaw ñi amul salaire moom wax dëgg yàlla li ma gis ci dossier yi loola bokk ca la ma gis ci dossier mooy ñiy fayeeku ñaar fukki junni jëm kat cent ñooñu nga xam ne weer wu dee danañ tàllal ñu jox leen loola te buñ ko dajalee 40 ans taxul ñu am kër mhm. président jàppale na leen pour ñu am kër waaw xam nga loolu loolu loolu programme la ndax c'est normal mhm. président am programme boo xam ne day jàppale nit ñi nga xam ne dañu soxla dëkkuwaay ndax Umaru li muy wax dëgg la nit yi mun na liggéey ci entreprise am benn salaire deux cent mille wala trois cent mille dëgg la mun na jël location. mun mm-hmm. na génn lu muy dunde ak transport am mais day jeex te day am njaboot kon dafa war a am fu mu dëkk. kooku tamit xëy na du ñàkk entreprise bi mu nekk suñ tabaxee xeetu kër yu mel noonu entreprise dana ko mën a couvrir dana ko mën a protéger banque dana ko mën a encadrer protéger ko mu jël bulletin de salaire dugal ci banque wala def nanga ba mën a am ci këru état yi ba nga xam ne la muy liggéey ci entreprise am saa bu weer deewee dinañ cee jël dara jox ko ko mu mën a nekk ci dëkkuwaayam normal mais réew mi problème bi dafa weesu loolu. Mhm. dafa am ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu soxla fuñ dëkk. te ñu ci bari xëy na amuñu seen njaboot koo xam ne mu ngi liggéey di faye ko salaire parce que ñu liggéeyul sax dafa ëpp ñuy liggéey. Mhm. te ñiy liggéey ak ñi liggéeyul ñëpp war a am dëkkuwaay. dëgg la li li li li li Mignon di wax ak yow li ngay wax benn la mais dafa am beneen problème bu gën a yaatu loolu. Mhm. mooy dëgg la état mënu nekk taxaw. président yore ay mandat te du tabax ay ay ay HLM yu doomi aadama yi dëkk loolu mënul nekk ku ñu amul xamoo li ngay wax dëgg la problème bi mooy ndax mate naka wala matewu ko uh-huh. est-ce que ñi ko soxla ñëpp ñi ngi ciy jot wala est-ce que jotuñu ci ci loolu lañ nekk mais président moom lu mu néew néew néew dana tabax ay dëkkuwaay yoo xam ne pour population am la. parce que day bokk ci programme am. très bien mais dafa am ñeneen ñoo xam ne nag. day bokk ci programme am Moustapha day bokk ci programme la dog da ngay yeggali. waaye it def na ci lu benn président masta def ci réew Sénégal. waaw 100000 logements moom am. yeggali waaw léegi loolu. loolu xëy na peut-être gars yi dinañ ko jugé. kii APR fi toogal non aussi tamit xam nga lan la eh def leen dànk eh. <laughs> Moustapha loolu dégluwuma parce foo yow yow foo waxal sa gis-gis moom man maîtriser wu ma. man vraiment. Moussa Ba yeggale man maîtriser wu ma. kii affaire la fi toogal débat bi ma tekki leen sama micro man kii mënu ma wax moom. Eh, mais déedéet am na non non non kii mënu ma wax moom parce que non bi boo xam parce que dafa faux moom moom dafa faux. yaa ngi dégg non mais moom nëbbul APR gi moom nëbbu ko ba sañse ko ñëw toog. kii daa ŋànk léegi yow daa ŋànk. ah da ngay yaakaar dafay dafay laal ay ministre dañ koy compal. moo tax nga toog ak ñoom am na foo jaar jaar nga marab. kaa ma xamal la leen nga kii nga kii kii il est malhonnête. <laughs> yow war a wax lii sama waa ji waaye non kii kii kii kii yow léegi loo bëgg mu nekkal fi sénégalais yi waaw te pourtant loolu lay def nag am di deful loolu lan moo tax muy jàppale Macky Sall waaw mais déedéet day wax li mu def dama koy jàppale parce que mi ngi liggéey day wax li mu def dégg nga bravo il travaille le président il travaille il travaille dur mais dara la travaille il travaille dur waaw dama ah, koy jàppale parce que mi ngi liggéey mais am na nag weer di gis bokku ci yow yaa ngi jaar ci yoon yi di ñëw man xam nga la la mi ngi def parce que mi ngi liggéey ah? million Papa ah, Ndiaye Papa Ndiaye yaa ngi jaar yoon di gis président yow fu la wooyee moo fàtt président dama koy jàppale président daal tali rek fi def ah, tali rek la fi moom li fi mi bàyyi ak ko ba sos leneen lu ko raw di ko doxal waaw loolu dama koy jàppale parce que mi ngi liggéey waaw jërëjëf travail waaw jërëjëf léegi yaa ngi comp de lii ngay wax nii waxu ku comp la timit timit ka yeggalil léegi li ma bëgg ñu def ko mooy moom am na sañ-sañ sax bu jot naa dërëm man Omaro bu dee jot naa dërëm bu jugee pale baa ma jógee ci président dugg ci sama biir bii yàlla na ma reesee yomal xiyaam. déedéet jëruwaat mais loolu am nga droit sa wërsëg. barke Sëriñ Bamba yàlla ma reesee yomal xiyaam bis ni tey